njëkkee jot fi Sénégal bi mu ma ne ma élage ma ni ko mu ne ma il faut que ñu wax yi pour coow lii dakk daf ci wax juróomi at après kenn waxaat bi mu demee ba génn primature dañ commencé waaj yëkkati coowu pétrole bi yàlla mayoon na ko barke koo xam ni képp ku mu toogoon wax ak yow loo mer-mer su waxee yow dangay ngay moo taxoon bi mu fi nekkee Macky Sall nekkoon ci jàmm ak salaam ju mat sëkk yoo xam ni saa yu syndicat jógee chaque semaine moom dañ doon amal conseil interministériel ak les syndicats ñu yëngal wala ñu bañ a yëngal da leen di woon ne leen ñëw leen ñu xool fuñ tolloon ci négociation yi xool luñ ci mën a avancer ñu avancer ci te vraiment koo xam ne woon la aussi bu décision amee léegi léegi la koy jël séance tenante régler ko ku efficace ku gaaw koo xam ne daraam du xaar ci lu rafet ak bu baax vraiment tey jii Sénégal kooku la ñàkk Afrique kooku la ñàkk jërëjëf euh, El Hadj Talla Matar Talla di nekkoon porte-parole ancien premier ministre Mamadou euh, Mouhamed Boun Abdallah Dionne nekkoon aussi ancien premier ministre du Sénégal pendant cinq ans. Mm. nekkoon na fii euh, xam ne yore woon. Mm. li xam ne mooy primature Sénégal. c'est mm. un grand homme d'État comme a dit El Hadj Talla. Mouhamed Boun Abdallah Dionne comme ni nga ko waxee doo ko dëgg ci bëri. mun na liggéey oui xam naa ni sa Alassane ñi ngi kii nga xam ne mooy honorable Abdou Abdou Mbow honorable maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. Euh, honorable euh, li nga xam ne mooy tiis bi euh, di génnum àdduna Mohamed Boun Abdallah Dionne ngeen ànd liggéeyandoo si li nga xam ne mooy si si Macky Sall tey jii yàlla def lu gën lan ngay retenir si ki nga xam ni ñëpp témoignage unanime ñu wax ni c'est un homme d'état. waaw dañuy wax rek inna lillahi wa inna comme ni nga ko waxee man yàlla def na xam na Dionne depuis. yàgg na parce que hmm. déjà man sama mbokk la sama cousin la hmm. donc peut-être lu ñu bëri xamuñu loolu mais sama cousin euh, beneen bi mooy Macky Sall bi nga xam ne ci la nekk à l'Assemblée mu nekkoon directeur de cabinet man j'étais dans le cabinet hmm. donc yàlla def na xaw naa yàgg ak moom euh, léegi di rek jokkoo naa ak soxnaam jokkoo naa ak euh, ki nga xam ne aussi mooy magam di euh, Cheikh Diop John mhm. nga xam ne sama collègue la woon ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay mhm. donc euh, mais bi ma jokkoo aussi ak soxnaam nekk na ku gëm yàlla moi j'ai même été surpris ci ni mu waxtaanee ak man léegi nii mhm. ni mu jokkoo ak man dama xam seen diggante ñoom ñaar te en tout cas li ma mën a wax mooy dañ koy ñaanal yàlla xaari bàjj na te bun joon jullit la woon nit ñi xam nañ ko taalibe murit la woon bu wér mhm. nit ñi xam nañ ko aussi mais aussi c'est quelqu'un boo xamante ni c'était un homme d'état je pense que loolu ñëpp nangul nañ ko ba pare liggéeykat la borom xamoon loolu Sénégal yëpp mën nañ ci ànd man dañ daan waxtaan souvent euh, mu wax ne man Abdou lenn rek moom a ñor mooy liggéey pour Sénégal jëm ci kanam mhm. parce que man euh, su ma sàccoon sax alal réew mi kan laa koy jox aw ma doom du papa du yaay donc souvent il me disait cela donc pour montrer la probité morale bi nga xamante ni moom la nit ki amoon mhm. euh, en tout cas yàlla na ko yàlla yërëm ñu ngi mhm. ñaan yàlla xare ko àjjana euh, il est quelqu'un qui a servi son pays qui a été totalement loyal au président Macky Sall parce que euh, ñëpp xam nañ loyauté ñëpp xam nañ aussi mais aussi ñëpp xam nañ ne c'était un homme d'état te jullit ko xam xam nañ à chaque boo gisee mu sol costume wala mu sol euh, yëru wala saabu lambee poosam xasi xasida la lay génne mhm. pour montrer un peu euh, nga xam ne noonu la mel en tout cas yàlla na ko yàlla xaare àjjana ñuy ñaan euh, lépp lu mu doon def suuf yàlla na ko rëccu en français des après le décès de l'ancien premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne Oui, je, je, je d'abord euh, rends à Dieu, mais je voudrais prier pour l'homme mm. et euh, regretter son décès et prier pour que Dieu l'accueille à son céleste. Moi, c'était un cousin, euh, un parent, mais aussi c'était un, un grand frère, mais un homme d'État hors pair qui était totalement loyal au président Macky Sall pendant tout son compagnonnage. j'ai eu l'occasion de le connaître très jeune mhm. parce que j'étais avec lui dans le cabinet du président de l'Assemblée nationale d'alors, le président Macky Sall. Il était directeur de cabinet et j'étais chargé de mission dans le cabinet. Et euh, nous avons eu à travailler, mais c'est une, c'est un homme d'une capacité, intellectuelle euh, peut dire hors norme, un homme d'État, un grand intellectuel, quelqu'un qui morale dans le service et qui sait servir son pays, qui a servi son pays hmm. euh, à, tous les niveaux. Il a été quand même euh, avec son mentor, le président Macky mais aussi il a été aux dernières euh, élections, candidat à l'élection présidentielle pour montrer comment l'homme tient à servir son pays. je pense que c'était aussi un bon musulman, un bon talibé mouride. Et ça, je pense que sa femme, il a accompagné pour le dire aussi, parce qu'il le connaît très Je voudrais présenter mes condoléances à sa femme, ma sœur Cathy, hmm. avec qui j'ai eu tout à l'heure, qui est aussi quand même une grande croyante qui, s'en remet à Dieu. Hmm. Et je pense que cela montre encore une fois de plus comment euh, le couple a su quand même euh, traverser euh, pas mal de choses dans la vie. En tout cas, mm. nous prions pour que Dieu puisse l'accorde quand même sa grâce et le, mettre au paradis céleste. merci beaucoup merci beaucoup honorable jërëjëf merci beaucoup c'est gentil merci merci beaucoup Alassane mi ngi noonu bay waaw li nga wax loolu la bun Abdallah Dionne ba mu déposé candidature am hmm. euh, dama ko woo téléphone ne ko lu xew la moo tax mu décidé nekk candidat hmm. euh, ci téléphone yu waxtaan mu ne ma soo gisee ma déposé sama candidature yaakaar naa ne mun naa service suma réew te yaakaar naa ne puisque président Macky Sall nekkul candidat man damay posé sama candidature. Mhm. ma ne ko mais yéen da ngeen amoon benn genre waxtaan bi ngeen war ak premier ministre bi nekkoon fii. Eh, di mhm. Moustapha Niass. Alassane nga baal ma beneen premier ministre. ancien premier ministre di Aliou Ngouille Ndiaye Aliou Ngouille Ndiaye maa ngi lay nuyu. oui maa ngi lay fay. Euh, Aly Ngouille Ndiaye ñoo ko yëgandoo li nga xam ne mooy génnum àdduna Mohamed Boun Abdallah Dionne mu nekkoon poste premier ministre yoo tamit nga jaar fa ànd ak moom liggéey lan euh, nga mën a témoigner ci ki nga xam ni moo génn àdduna tey jii ci àjjuma ji. en fait man j'étais ministre pas premier ministre man bi mu nekkee premier ministre moom man j'étais ministre de l'intérieur euh, d'abord de l'industrie ensuite de l'intérieur bi mu nekkee mu nekkee ministre. donc euh, c'est vrai que dégg nañ nouvelle bi tey muy tiis bu rëy ci ci ci Sénégal di tiis bu rëy ci ñun euh, ndaxte rek du liggéey rek lañ bokkoon dañoo amoon ay relation assez particulière euh, man ak moom ba doxal ko ba daanaka muy muy dog di daanu di feebar noonu. Mhm. Mhm. lan lañ mën a jàpp ci ki nga xam ni mooy Mahammed Boun Abdallah Dionne. waaw Mohamed moom wax dëgg yàlla man de ci liggéey bi laa ko xamee euh, maa ngi wax léegi rek ci benn seen benn confrère ne ko bi may xamante ak moom mooy bi ñuy waajee dem di dem défendre PSE à Paris xam nga boobu président dañu jaar Chine. Mhm. Mohamed Chine la ñu fekk euh, boobu la ñu xamante président présenté ma ko. ñu am garder foofu de bons rapports jusqu'à ce que muy ñëw ci gouvernement bi nekk fekk yore ministre en charge du plan Sénégal émergent mhm. donc foofu lañ commencé ensuite yàlla def it bi mu jógee ci PSE ba ñëw ci primature wax dëgg yàlla ñu am ay rapports yu dépassé sax rapport liggéey mhm.